alors euh, euh, événement bi ñuy junglu tey bokk na ci euh, événement yi gën a siiw fii ci Sénégal muy mai 68 koo dégg mu ne la les événements de mai 68 muy nag événement yoo xam ne bis ni tey la woon pëccëxoo gu metti amoon na ba sax nag syndicalistes yeeg xeexkat yi yooyu jamono yëngaloon nañu nguuru président Léopold Sédar Senghor ba fi nekkoon ba sax mu decrété état d'urgence mu amoon nag ñaari version nguur gi joxe ne. benn bakkan moo faatu ñeneen ñi ne ëpp na loolu ci mën a am euh, Salmon Khoury moom euh, wuy ji woon na boroomam jafe-jafe yi bari woon na ñu def taxaw seetlu bi ànd ci ak yaay Kumba te lu siwaat léegi-léegi ci plateau Infos Matin fanweeri fan ci weeru mai atum 2022 ci lu jëm ci élection législative ya DGE nag ñoom dañoo nanguwul woon list ba nga xamante ni moom la waa coalition Yewwi Askan Wi déposé woon li ko waral nag mooy dañoo jàpp ni rek waa coalition boobu respecté wuñu woon parité fanweeri fan ci weeru mai atum 2016 suñu njiitu réew mi Macky Sall nag jot na fay sekk waxtaan ak maître Abdoulaye Wade mi ko fi jiitu woon ci boppi réew mi te sooy seet sax euh, seen diggante neexootul woon Macky Sall nag dafa woowoon maître Wade ngir souhaité ko joyeux anniversaire ci 90 ans yi mu doon am ci at mi président Abdou Diouf nag euh, bi mu ko yëgee moom tamit euh, si la woo Macky Sall ngir félicité ko itamit rafetlu bu baax initiative bi nga xam ne mën na indi jàmm ci seen diggante fanweeri fan ci weeru mai atum 2013 mbirum traque des biens mal acquis jëwrin bi ñu fi denkoon lu jëm ci propagande du PDS maanaam siiwal seen liggéey Farba Senghor nag dañu ko auditionné lu toll si juróom-ñetti waxtu ca section de recherche de la gendarmerie bu caserne Samba Diéry jàlloo féete Colobane fanweeri fan ci weeru mai mooy bés bi nu jagleel sclérose en plaque sclérose en plaque mooy feebar bu chronique buy jàpp système nerveux central. fanweeri fan ci weeru mai atu 1968 ci événement ya xewoon réewu France Charles de Gaulle moom nag dafa feeñaat gannaaw ba mu làkkatoo woon seeti général armée ba Jacques Massou ca Baden Baden. ñu taxaw ci fanweeri fan ci weeru mai atum 1968 tombé ak discours bi nga xam ne moom la njiitu réew mi amaloon ginnaaw grève illimité ba étudiant ya nekk université bu ndakaaru lancé woon te mu jàlloon nag ca rajo yi jàmmaarloo yu metti moo amoon ca suba sa diggante takk der ya ak étudiant ya ba ay barre de fer génnoon cocktail molotov ak i ay grenade lacrymogène waa nguur gi nag dañu ni am na si sax ku si ñàkkoon bakkanam te 69 étudiants jële woon nañ si ay gaañu gaañu waaye suñu sukkandikoo ci waa syndicat ba ñeenti moor moo si amoon amoon ak lu toll ci 392 blessés lu ëpp aussi 300 étudiants tëjoon nañu leen ci kaso yi lu toll tamit ci 1000 étudiants étrangers delloo woon nañ leen ci seen réew ñu dellu si rek ci circonstance bi étudiant Salomon Khoury deewee ak nag li yëngaloon régime Senghor ba taxoon mu décréter état d'urgence. étudiants yi ñoom nee nañ 292 étudiants ñoom ñoo blessé woon mais entre le gouvernement ak kuréelu étudiants yi. am na désaccord ci côté ñi dee de même que ci côté blessé yi parce que état bi dafa jàpp ni euh, l'étudiant Salomon Khoury moom moo rey boppam ndax de doon mani manipuler cocktail molotov boo xamante ni da ko yoroon comme arme te wu ko mais étudiants yi dañoo bañ thèse boobu ñoom nee nañ ñi force de l'ordre yi ñoom ñoo ko tiire grenade lacrymogène ñoom roobu ñoo le 12 mai ci la mbooleem étudiants yi nekkoon université Dakar ci lañ mànkoo woon booloo doon benn pour contester décision ba nga xamante ni euh, président Léopold Sédar Senghor jëloon na ko ci wàññi seen bourse yi ak euh, liberté d'expression ak l'impérialisme française ak yeneen yu bari yoo xamante ni mais li ci gënoon a fës daal moo nekkoon ni seen bourse yoo xamante ni daa jëloon décision pour wàññi ko naka noon nag le 24 mai étudiants yi ci lañ réclamer ne étudiants yépp dañoo war a am bourse bourse totale c'est-à-dire amul demi bourse ñépp a war a am bourse entier et ñépp ñoo war a yi sans condition le 27 mai 1968 ci la lañ décrété grève générale boo xamante ni amul àpp euh, grève boobu nag la 29 mai 1968 ci la affrontement yi amoon ci affrontement yooyu nag xeex yu méttee métti yu tar xewoon na ci ba causé woon na ay mooru étudiant benn étudiant étranger maanaam étudiant boo xamante ni bitum réew la jóge woon ñëw fii euh, di sàkku si xam-xam ci suñu réew mi. ñuy jaajëfal bu baax Abi Tine muy euh, doctorante ci wàllum euh, taarix muy histoire mortale mu dellu si waat quand même ci événement mai 68 yëngaloon na Sénégal de. parce que événement bu siiw la ko wax mu ne la mai 68. waaw mai 68. dafa hmm. am nag benn professeur Oumar Gueye moom hmm. moo ci bind benn livre. Euh, duppee ko euh, mai 68 au Sénégal. Mm-hmm. Euh, livre bi 336 pages la mi ngi ko génne fële ñuy woowee les éditions Cartala. Mm-hmm. moom nag da ci raconter tous les détails daf benn genre chronologie. Mm-hmm. ci mai 68 ba. Euh, Sénégal ñi ko fekkewul woon da ngay jàpp ni. Mhm. da nga ciy assister. Mhm. mais moom dafa jàppoon ni mais euh, mai 68 mu ngi commencé le 12 mai. Mhm. ba étudiants yi regroupé woon Union des étudiants du Sénégal. ba ñu dajee UDES. pour un peu organiser. benn euh, taxawaay daal ni daal ñoom dañu bëgg léegi ñu am ay bourses entières bëgg également. vraiment pouvoir personnel Senghor bi. mu jëm ko seetaan. Mhm. après le 24 mai. ñu commencé réclamer des bourses. 27 mhm. mais mu am benn grève totale. très bien le 29 nag ci la affrontement verbal yi commencé ba ñoom ñu génne sax ay professeurs génne campus bi. Mhm. ci la nag euh, trente mai. Mhm. Euh, Senghor yónnee force de l'ordre yi. ñu dem euh, jàpp ay étudiants. dóor leen ñu ci bëri ñu blessé ci la nag kii gaañu. Salomon Khoury. nga xam ni étudiant libanais la woon. bu njëkk. ay ressortissants étrangers yu bëri dañ doon ñëw di jàng université de Dakar. libanais boobu nag. Mhm. Euh, version officielle bi dafa wax ni moom dafa doon manipuler benn grenade lacrymogène moo tax grenade bi explosé rey ko. Mhm. mais étudiants yi ñoom dañu jàpp ni. policiers yi ñoom ñoo ko dóor grenade lacrymogène très bien mu nekkoon benn coow loo xam ni remené woon également la pouvoir de Senghor je pense mhm. ñi ngi am accalmie entre Senghor ak étudiants yi ba Lamine Gueye gaañoo Lamine Gueye ba mu gaañoo le 10 juin mhm. Euh, ci la daal akal mi am. Hmm. nit ñi daal di delluwaat euh, xel yi. ñu mën a mu am apaisement ci campus universitaire. merci beaucoup Mokhtar la mu nekkoon ay leeral ci les événements de mai 68 ñëw euh, léegi ci xibaar yi ci gàttal ak Cheikh Tidiane Diaw.